ma lay lii dal ñeenti daanaka ñeenti thème la mën nañuy wax su ko defee soo soog xuus ci waxtaan bi thème bu njëkk bi mooy le Sénégal et l'Afrique des sélections brillantes des clubs toujours dans le dur kii nga xam panéliste bi Blaise Diagne la panel 2 quel modèle économique viable pour le football local panéliste bi Pape Massata Diack la Euh, panel 3 bi comment améliorer le cadre juridique du football local les organes de régulation en question kooku ñu ngi ko jox maître Seydou Diagne et ñeenteel bi nag moom mooy l'impact de la bonne application des lois du jeu dans le développement du football panéliste bi Ibrahima Birima Niang la instructeur CCA xam nga soo soo dee seet ñu loolu sax loo xamante ne bii ne lu ñun ñëpp ràññee la mooy daanaka suñu équipe nationale bu njëkk bi mu ngi tàmbalee gagné waaye suñu club yi mënuñoo sori suñ dee dem ci Afrique Mm-hmm. la dernière en date mooy équipe bi nga xamante ne mooy génération foot ñëpp xam nañu am nañ ay infrastructure am nañu lépp parce que soo demee diini xam nga ni c'est une bonne équipe. Mm-hmm. ñu ngi entraîné waaye gis nañu génnuñ sax li nga xamante ne moom mooy premier tour bi edu guléet ko ci équipe yu baree baree baree bare suñu weesoo loolu li nga xamante ne moom mooy suñu club de Ligue 1 yi xam nga amuñu moyen yoo xamante ne bii nii. dañ koy faral di def pour dem récupérer ay jours wala sax pour fay xale yi. Mm-hmm. soo dee seet benn président moom moo fa nekk naa la moom mooy jël ci def et loolu war nañ koo mën a dog ndaxte day tax ba club duñu dem benn nit mënut a yori club c'est pas possible il faut trouver des solutions yu leen di permettre club bi dina am xaalis ba xale yi mun a toog fii soo dee seet benn xale bu fi football une saison dem Maroc sax wala dem Tunisie wala dem Algérie moo koy gënal toog fi nga xamante ne mooy Sénégal mhm. wala Soudan wala Tanzanie mhm. loolu dañoo nekk ci waxtaan boobu lañu gis ñun en tant que Euh, taskatu xibaar ñu ne lii kat war nañ cee mun a joxe suñu xalaat woo ñoo xamante ne bii nii seen xam-xam màcc na ci loolu ñu ne leen defal leen ñu lii suñu paree loolu ñu fay jëlee dañuy dem déposer ko fi nga xamante ne moom mooy fédération sénégalaise de football ñu am ci ay njàngat yoo xamante ne bii lépp pour suñu football gën a mucc ayib la ba 2029 boobu nga xamante ne bi ñu ngi koy wax war a jëm ci euh, coupe d'Afrique des nations bi ñu mun a am suñu amul jour yëpp sax suñ jógewul fi nga xamante ne moom mooy Europe dina ci am 5 à 7 à 8 jours yoo xamante ni bii nii dinañ mën a jóge fii nga xamante ni bi moom mooy Sénégal bokk ci équipe nationale locale équipe nationale euh, A bi yi nga xamante ne bii nii seetlu nga ni amul sax benn footballeur locale boo xamante ne bi mu ngi ci jàpp naa ni football euh, équipe nationale dafa war a nekk vitrine daanaka football local wala football bi nga xamante ne moom ngay def seen dëkk